waaw kay salaamaaleykum mbokki àdduna salaamaaleykum Sénégal ku gis taxawaay bi xam ne lii lu rëy la muy diggante Modou ak Eumeu di revanche bu mag fii si Sénégal ñëpp di ko xaar nga xamante ne ni muy Modou Lo moo fi daanu Eumeu bu yàggul Eumeu Sène nag yàlla dogal na ji moo téye roi des arènes bi xam naa dañ ko moom la ñuy jox kàddu bi rek mu def nii moom. Euh, man nag awma lu may wax waa Pikine kese laa am Pikine rek dong Pikine rek laay nuyu c'est fini point. merci Eumeu Sène Modou Lo waaw di sant yàlla rek moom du ma ëpp fula quoi est bu yemee foofu man ma yem si waaw waaw parcelle unité 1 ba 21 quoi waaw xam nga loolu la quoi amul leneen waaw. léegi ji yaay roi des arènes bi ku ne xam na ko léegi yow Modou Lo da laa daanoon yow yaa jël sa revanche donte yaay roi des arènes yow lan nga xam ci ak lan ngay préparé pour pour indil ko Modou Lo. pour pour muy clair. Mhm. Modou dañ ko fay joutal joutal gu rëyal rëy joutal ko bam ne fang gis nga ko joutal gi motax senegal fim toll dem nañ ba jege coupe gi dem ba koy xeeñcu amuñ ko wa amuñ ko wa amuñ ko amuñ ko damay bàyyi ma wax waaw ah ñu joutal ko ba tax amuñ coupe bi pétrole bi génn ñepp contane di xàppi man ma doon contane yaakaar ne dina boyal si pétrole bi batay tey gisuma dara ndax joutalam gi xalé yi ku fi ñepp a pérokoos ah ba pare xalé mu mënu fee am jëkkër ndax mom xalé bu judd dellu ndax joutalam Modou la jëkk mos Modou loola ngay tontu ci loolu kii waroo ko sax jox kàddu muy wax parce que waxu yi nga xam ne joxuma respect quoi mm-hmm. comprend ay sama juutal bu koy tudd fii quoi xamal ma la xamal ma la kon tey kii nii maa kii sax du maa lu parce que man maa ko man maa ko quoi moom mooy ñëwaat ma daanaat ko bëree ko moom ba mu xoox ma daan ko quoi ndax ay sama bideel monsieur Niamal bàyyi sama de jeex ah, non ah amoon nañu la quoi man li may wax bëriwul parce que daan. ku daan du bëri wax. ah su ko defee rek ngeen xaar euh, combat bi nga xamante ni moo war dox ci diggante Modou Lo ak Eumeu Sène muy le 28 na bi ñëpp xaar te xam ne combat bu rëy la combat royal fi juutal juutal bu métti ji ba ba daan. waaye ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp nga daan man man ma daan la yow mi nga daan ñooñu ñëpp man maa la daan fexe maa daan moo gën waaw jërë ngeen jëf jërë jëf xam naa ni ngeen waaj seen combat rek le 28 incha allahu rabbi nu ko ñëpp préparé ñoo seraan ko incha rabbi jërë jëf ama seen yaa ngi dem leen dem jëf